nuxayikum jamian bi taxiyatil islaamiya qailan lakum assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu yéen tedd yi nga xam ne yéen a ngay seetaan télévision Seneinfo ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di ñëw yéen ci dars bi nga xam ne baaxoo nañ da ñëw fi da ko indil fii kulli yawmil xamis tey nag ñu ngi woon ci bunt yi nga moo doon yàq njàpp Euh, kii bu paase nii ñu ngi taxawoon ci walam du zakkari al mutasil bi baatilil kaffi laal maanaam waa joxa dafa laal xawraam muy sàkkaraam amul lenn lu dox ci diggante bi nag lu ko digle mu laalee ko bi baatinil kaffi ci biit tënqam aw bi baatinil aswaabiha wala ci biiti baaraamam xonq-xonq yooyu bu ci laale xooraam njàpp la dafa yàqu waaye bu jën bay xaar wala ci peet loxo yi peet yi mooy pegg yooyu pegg xonqonq xonq yi wala bi isbaxin doonte dafa nekk baram boo xam na zaidin dafa dafa dooleeku in xassa ndam yëg na laal ga am na ñoo xam ne léeg-léeg dañuy am juróom benn baaraam six baaraam benn baaraam bu tolleeku bu ndaw lay xaw a nekk léeg-léeg sama nekk bu xaw a dijji baaraam boobu bu laalee xawara bi te yëg ne laal na ko su boobaa njàpp la dafa yàqu woo bi lam si ak laal jigéen laalu yaram woo moom ala arbaati nekk na si ñeenti xaaj moom laal jigéen in qasada bu jubloo allah sa tabaa neex ma wajadaha mu xam ko ca fa alayhi war na ko alwudu un jàpp bi mooy laal ndaw si def see jublu woon plaisir yàlla dogal mu am ko ci su boobaa njàpp li dafay yàqu in wajadaha bu ci amee bànneex walla mu yàq sidha te jubluwut ko si ba tey fa alayhi war na ko alwudu un jàpp ba mooy laal soxna si jubluwu si bànneex waa bànneex fekk na ko ca ba tey njàppale dafay yàqu wa in bu si jubloon bànneex waaye wala mu jëdaha amul ci bànneex faxale war na ko alwudu njàpp ndax yéene baa taxoon ci yéenu bànneex ba moo laal ndaw si yàlla dogal bànneex fekkut ko ca ndax dañ koy toroxal su boobaa njàppale moom day yàqu fa in lam yaqsid bu jubluwut ci laal ga àll sa te bànneex walam yajid haa te amul ci bànneex ba tey falaa wuddoo da teg jàpp xal yi da ko war bi mooy laal ndox si amul benn intention pour laal ndox si jublu si benn bànneex te amul ci benn bànneex su boobaa njàppale moom du yàqu wala yen taqidu du yàqu alwudoo njàpp bi mas si dubbarin ci laal buntu suuf fu mooy demee duus bu laalee foofu mooy addubur bu ko laalee njàpp lu di yàqu walal unsayen du saa gën ñaari àndaale mooy ñaari way yoore yi àndaale ak bi ñaari yooyu ñaari donj yooyu bu ko laalee njàpp lu di yàqu wala bi ma si farji soqiratin du caa gën laal xawraay xale bu jigéen xale bu ndaw a ndaw nga laal xawraam njàpp di yàqu ñàkk ko laal na moo gën ndax ba nga ko wax jamono boobu jamono tollu xoon na foo xam ne nit ñi nit ñi dañee selloon feggu xoon waaye léegi dangaa gis koo xam ne borom kër gu doon léng-léngaaral da xale boo xam ne amagu sax trois cent yu baax wala xay in du caa gën wëccu lekk wëccu jàpp ba pare wëccu yàqu njàpp di wala bi akli laxmi jazuur du gën ko jàpp ba pare lekk yàpp gëlëm gu duuf lekk yàpp gëlëm gu duuf yàqut njàpp ci ngir maalik waaye nag am na ci yeneen ngiri boo demee ñoom danaan boo jàpp ba pare nga lekk yàpp gëlëm su boobaa sa njàpp dafay yàqu wala bi akkali laxmi jasuur du caagan lekk yàpp gëlëm bu duuf wala xijaamatin du caagan nàmputal nàmpatal mooy nga def ko génnee deret ji nga xam ne dafa dee pour sa yaram bi gën a mën a dund nàmpatal boobu boo jàppee def ko sa njàpp yàquwut wala fas din du càggan koo xam ne dafa jàpp ba pare daal di gàjji gàjji loxo bi wala mu gàjj tànk bi gàjj mooy koo xam dafa fëxëj tànk bi néewi muy génnee deret ji nga xam moo waral loolu dafa dafa gàjji wala bi xaatin du càggan xàqataay fi salaatin ci biir julli julli gi moom yàqu na waaye njàpp lu yàqu ci ngir Maalik waaye boo demee ci yeneen ngir yi ba tey ba ci mel ni Shaafi'i yu ñoom day naan sa njàpp dafa yàqu ndax boo jullee tey ku nga xaqataay sa biir julli dangaa murtat te ku murtat nag lépp lu mos a def yàqu na wala bi mat simraatin du caa gën laalu jigéen farjaha xawraam mooy pëyam bu fekkee daf ko laal ci kaw gi ci saahir bi ci kaw rek du yàq njàpp waqila ana borom xam-xam boo wax ne indil tafar bu fekkee dafa lunkal dafa dugal baraaba ci pëy mi faxan layxaa war na ko awu doo jàpp bu laalee ko pëy mi ne njàpp lu di yàqu waaye bu dugalee baraab bi ne dugal ko ci biir awra bi su boobaa njàpp lu dafa yàqu wallaahu yàlla alamu mu war a aja xam ñu dem ci xaaji ndox yi baabu aqsaamil miyaax lii mooy bunti xaaji ndox yi alati ndox yi nga xam ne yajoo su dana dagan min haa ci moom alwudu njàpp te bépp ndox moo xam ne mën naa jàpp ndox moo mën naa sangu farat sangum set te sangum set saaba du ci bokk ndox kese lay nekk dañ ci ñëw ci kanam a kanam insha allah ndox moo xam ne rek mën nga koo jàppee mën nga koy sangum sangum set alam xamal waffaqaka yaa na la dëppale ak topp allahu yàlla taala mu kaw mi yoo mbokk mi na nga xam ne anal ma a ndox de xalal xisma ni nekk na ci ñaari xaaj ndox ñaari xaaj la maxlootin ndox mi nga xam dafa am lum jaxasoot wa xayri maxloot ak ndox moo xam ne jaxasoowut ak lenn ndox kese la fu amal maxloot fa amaa xayru kay fa amaa xayru maxluut daa ndox mi nga xam ne jaxasoowut ak lenn foofu moom ndox moom taxóorun laabaakoon la ndox moom laam na mën naa jàpp man naa sangu farata man naay naan moom ndox mi nga xam ne jaxasoowut nga xam ne danga ne ndox kese waxoo moom almaa dañ ko boyal ñu ndox kese lañu wax waxuñ ndoxu sukar waxuñ ndoxu xorom waxu ndox la ndox kese lañ wax yooyu joosu dina dagat minu ci moom alwudu u njàpp moom ndox moom sa waa moo xam nag na nasara daa wàcce mi ne samaay tukkee ci asamaan aw nabaxa wala ndox mi ballee minal ardi ci suuf moo xam ndox moomu dafa nekk ndoxum teen moo xam ndox moomu dafa nekk ndoxum asamaan moo xam ndox moom dafa nekk ndoxum siyaan siyaan mooy ci teen yu ndaw yooyu nekk ci bëgg dex yi ndox mu neex lay am boo gisee trois mètres quatre nga jot ndox ma mhm. bu amal maxlootu daal ndox mi nga xam ne moom dafa jaxasoo ak leneen isaa taxayyara bu fekkee dafa soppeeku xaddu awsaaf yi benn ci ay melokaanam asalaasati yi ñett loo ni melokaan ba moo soppeeku aw tax mi walla cef ko ga lam doon saf safatut ko am na changement aw riixi wala xet ga ñoo soppeeku ko bi shay'in ci dara foofu moom ndox moomu alal xisme nekk na ci ñaari xaaj fekk ndox mi dafa changé couleur ba moo changé caf ko gi moo changé wala xet gi moo changé ndox moomu nekk na ci ñaari xaaj taaratan yenn jamono yi yaxtalitu dana jaxasoo bi najasin ci sobe fa yataxayaru mu soppeeku bii ci sobe sa kon folma ndox ma naj najisun sobe la laa yasuhu du wér minu ci moom moom ndox moomu laa yasixu du wér minhu ci ndox mi allan laa yasuhu du wér minhu ci ndox moomu alwudu njàpp boo si mënta jàpp nag mënoo cee sangu illam yataxayar bu soppeekuwut moom ndox ma bi ci sobe sa fa in kaana bu nekkee alma u ndox ma xaliilan mu da aji néew waaye na sens wut sobe si wan na jaasatu sobe si moo tam xaliilatu mu nekk lu néew kuriha sibéef na alwudoo njàpp minhu ci moo xalaal masho tax ju gën a siw mooy ndox moom sim nañ ko ci jàpp su fekkee am nga beneen ndox waaye fekk ndox ma roma fa sës su boobaa kenn but ku ko jàppee xalal mashhur ma mashhur nag dafay wax naan kenn buti ndox moom ku ko jàppee wataaratan yenn jamono yi moom ndox moomu yaxtalib te dina jaxasoo bi taahirin si aji laab fay taxayyaru mu soppeekoo bihi ci lu laab loolu dafa jaxasoog lu laab ba sa ba soppeeku ci loolaam ndox mi dafa jaxasoo suukar mm-hmm. kon mbokk julli ni ñi yemale ko ci ndox mi nga xam ne dafa dafa tuuti jaxasoog sobe soo xam ne dafa tuuti ci boobaa kuriha si bépp na doo njàpp mi nu ma ci moom xalal mashhur ci wax ji gën a siw bu ko ñu taxaw foofu incha allah ba beneen jamono wasalaamu wa sallallahu wa muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh